doon yéene kay eh, Seydina Omar Ba on enchaîne directement avec euh, la revue de la presse Seydina Omar Ba ñu dewaree ko ak Walf Quotidien je pense. waaw Walf Quotidien lañ koy tàmbalee bon utiliser li nga xam moo di eh, PDF yi. Euh, mm-hmm. Serigne aussi jàppale ñu si. Euh, wax ci Walf Quotidien Walf Quotidien dafa xëy dellu si waat ci Sénégal horizon 2050 waxi tamit ci potion magique ak Sonko joxe nañ ko démb noonu la ko yéenekaay gi ci jamono joojule Bougane Gueye Dany ma a existé yéenekaay gi moo xëy local bi lan la ñuy xaar ci projet bi lee projet bi lee ndax campagne électorale moo ko tax ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëy fësale Sud Quotidien bu ñu kon ci Walf Quotidien dañuy ñëw ci Sud Quotidien Sud Quotidien dafa xëyee Euh, dellu si ba tey ci lancement nouveau référentiel bu politique publique bi la euh, Sénégal cinquante noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale yéenekaay gi ne démb moom daanaka ab guy lañuy génne jëmmal ko ngir wane ci lii lañ fas ne sukkandiku ngir mën a teg Sénégal ci kaw yoon yokkute Euh, président Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ay kàddu wax ne ak référence bi euh, ci lañ daal fas yéene sukkandiku ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute noonu la ko yéene kaay gi euh, di Sud Quotidien xëyee fësale bu ñu jógee ci Sud Quotidien dañuy ñëw ci réew mi quotidien mi nga xam mu ngi soxool politique publique bi ci ñaar fukki at ak juróom nga xam fa lañ jëm yéen gi nag xëy dellu siwaat ci la nga xam ne ni moom la si Basiru ak Jomaay maanaam li si li si Jomaay ak Sonko daxañ noonu la ko yéen kaay gi di réew mi xëyee euh, fësale. bés bi le jour. bu ñu jógee ci réew mi ñëw ci la bés bi bés bi aussi dafa xëy dellu siwaat ci jomaay bi nga xam daanaka jëm moom mu ngi doon jëmmat ab baobab maanaam ab guy guy gi nag la mu ci mooy fexe mandargaal Sénégal ne nii la fa seen doxee li ko dalee ci euh, dënn maanaam ci suuf ba ci kaw lépp daal daanaka dafay ci misaal nekk na ko fësal président Bassirou Diomaye Faye yëkkati ci ay kàddu joxe ci xalaatam euh, xam ne ak ki nga xam moo di nga xam daanaka moo jëmal projet bi noonu la ko yéenekaay gi di bés bi euh, xëyee fësale. ñu wax ci enquête. l' enquête yéenekaay xëy dellusiwaat ci Sénégal 2050 bi nga xam présenté nañ ko ni ki démb euh, mu nekk nag ay projets yoo ne ni yu rëy la waaye ñu bari xaal euh, koppar yooyu la maanaam projet yooyu ban xaalis moo ko fas mu nekk nag ay laaj yu bari yoo xam ne gars yi ko ci présentation bi la noonu la ko yéenekaay gi. di l'enquête xëy fësale. yor-yor yor-yor xëy dellusiwaat ci vision Sénégal 2050 président bi président Bassirou Diomaye Faye daanaka. ma ngay dévoiler ñeenti axes yi nga xam ne ci la fas sukkandiku ngir mën a teg ci kaw ngir mën a teg Sénégal yokkute mu nekk nag ay axes yoo xam ne ni bi ci jiitu mu ngi jëm ci wàllu économie bi bi ci des mu ngi jëm euh, ci wàllu capital humain bi ba euh, beneen bi ci des mu ngi dem ci wàllu aménagement ak bonne gouvernance noonu la ko yéene kaay gi euh, di yoor yoor xëye fësale ñu dikk ci ban ci l'info. ñu ñëw ci l'info yéene moom it dafa xëyee dellusiwaat ci loolee l'info bu fekkente ne yàmb na rek bu bu jógee ci yoor yoor kon dañuy ñëw ci yéen kaay gii di l'info l'info yéen kaay xëy dellu siwaat ci euh, présentation euh, vision Sénégal 2020 2050 noonu la ko yéen kaay gi xëy fësal yéen kaay nag la boo xam ne ci ay chiffres ak euh, ko bi kon di le quotidien le quotidien yéen na noonu la ko yéen kaay gi xëy boo xam ne ci la ñu fas yéene sukkandiku ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute Euh, mu nekk nag projet boo xam ne gis-gisu Diomaye ak Sonko yéen kaay gi moo xëy fësal loolee nee nag ci diirum ñeent juróomi at yi dañoo fas yéene compté ci lu ci ëpp lu ci tolloog fukki milliards ak juróom suñu koppar fukki junni milliards ak juróom-ñett ci suñu koppar ngir mën a teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute noonu la ko yéen kaay gi di la quotidien xëy fësale Vox Populi Vox Populi xëy dellu si waat ci vision Sénégal ñu mo sosal ci ay chiffres ak ay lettres yéen gi moo xëy fësal loolee Victor Ndiaye mi nga xam mooy jëmmal projet bi ma ngi koy décortiquer noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale mu nekk nag ab projet boo xam ni lañ ci jub daal mooy jëmmal ko fi rek ma ñaar Soleil ah, ci lancement vision 2050 waxi ci li nga xam lay xaar ne lu ci toll ak juróomi juróomi téeméeri junni ci emploi daañu ko fas yéene créé ci mu ngi soxal secteur tourisme bi kese Euh, ay bâti ay construction juróom benn corridor daañu ko fas ne taxawal maanaam moo xam ci yoon ba ci yoonu saxaar yi la wax aussi financement bi nga xam soxla nañ ko mu toll ci fukki junniy milliards ak juróom-ñett suñu koppar noonu la ko yéenekaay euh, ci projet bi ñu ne enfin le jour noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ne nag projet boobu nañu ko yéenekaay gi xëy fësale euh, Diomaye wax ne si daal ne ci projet bi la fas yéene sukkandiku ngir teg Sénégal ci ko yoon yokkute Sonko aussi wax na lu ni mel ku ci mel ne Bougane Gueye Dany moom dafa jàpp projet bi plagiat la yéen a kaay gi moo xëy fësal loolee les économiques xëy dellu soit ci jéegi ak ñoom ak ñoom mujjee nañ dee jéegu moom dafa nangoo joxe ab caution bu toll ci ñaar fukki millions ak juróom-ñett suñu koppar loolu moom moo tax démb denc ñu ko noonu la ko yéen a kaay gi di les échos xëy l'observateur euh, l'observateur a kaay xëy dellu siwaat projet Diomaye ak i secret yi nga xam moo nekk ci suuf euh, président Bassirou Diomaye Faye daal ma ngay sàkku euh, ci premier ministre Euh, ak maanaam maanaam maanaam président Diomaye Faye woote gi mu woote càkkute gi nga xam premier ministre mu ngi koy sàkku ak taxawaay syndicat yi nga xam daanaka ñu ngi ñu si bëri si ñoom ñu ngi doon critiquer référence yi de noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen kaay gi xëy dalal jéegi Diop mi nga xam ne daal ma ngay nettali na mu dund démb ci kaso bi le kaaf ga daal la mu fay dund daal ñaanul yàlla benn doomu aadama dund ko fa noonu la ko yéen kaay gi de l'observateur xëy fësale laas laas mooy kan lan mooy fan la juddoo fan la moo di taxawaayam Victor Ndiaye mii ki ñu ko xamul nag mooy ki nga xam moo nekk ci ginnaaw projet bi noonu la ko yéenekaay gi di laas xëyee fësale. le mandat le mandat yéenekaay xëy dellu si waat ci duo Diomaye Sonko yéenekaay gi ne ko mujjee exposé mi ngi ci yéenekaay gi di le mandat. direct news direct news xëy dellu si waat ak it ñaari euh, filiales yoo xam ne ko fas yéene lancé. Euh, mu waaye yéenekaay gi dafa xëyee samp laaj bëgg a xam bu dee ci wàllu bonne gouvernance maanaam ci wàllu yo euh, ni ñu ko doxale tey na xel lool noonu la ko yéenekaay gi. di direct news xëy fësale. libération dellu si waat ca eh, eh, ci fi nga xamoon société générale ñu gën mu ñu gën ko xam ci boo xam ne ngi toll ci 1,9 milliard jàpp ñetti milliards ci franc CFA. Euh, mu nekk nag loo xam ko faa nemmeeku ba tax nañ jàpp ne ab délégation judiciaire bu doyen du juge euh, lancé na daal ab requête lañ ci ba koppar yooyu ñu dem ci indi ngi ci yéen a kaay gii di libération. ñu record. Euh, record yéen a koy xëy dellu si ci match bi nga xam ne war naa dox tey ci diggante mala euh, Malawi ak Sénégal euh, bu 13 jotee lay doon Sénégal nag foofu mu gagné bu fekkente ne bëgg nañoo qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations noonu la ko yéen a gi di yor yor di record xëyee fësale. réew mi réew mi côté lañ koy jeexalee. ne Pape Thiaw yëkkati ay ay kàddoom wax ne tey jii moom dafa bëgg a fas dafa bëgg a Euh, ci coupe d'Afrique des nations yi parce que tey ji moom bu ñu gagné rek mooy qualifié nañu noonu la ko yéene kaay di réew mi xëy fësale kon soxna Fatou lii daal moo nekkoon li gënoon a fës ci yëgle kaay yi yàkkal liggéey ci digg bëccëg gi ak kii di Abdoulaye Bopp waaw ci kanam tuuti ak Abdoulaye Bopp lay doon ñu ba permettre la monsieur le maire nga souffler un peu le temps ñuy ñëw euh, ci actualité vue par euh, Seydina Oumar Ba le temps de recevoir sur ce plateau l'homme de l'éducation il s'agit de Moussa Sène Moussa Fatou bi Diouf. mbaa yaa ngi si jàmm suba si. suba saa ngi nii rek. yaa ngi géré rek di la dalal. waaw gis nga di kontaan di la nuyu di nuyu monsieur le maire ma fekk si plateau bi ak euh, sëñ Abdoulaye Bopp. Euh, di nuyu euh, tamit ki ñu fi dalal. ñu fa yéene waxtaane lépp loo xamante ni rek tukki na ci wàllu njàng meek njàngale mi. ci kanam tuuti euh, lay doon monsieur le maire xanaa ñu dikk rek ci euh, tey euh, peut-être da ngay sëgg ci li yéene kaay yi lu ñu fësal ci actualité yu gën a faar est-ce que projet bi gën cee fës. effectivement loolu moo ci gën a fës bon ñu bëri ñu ko doon xaar waaye finalement mujjee nañ koy jëmmal ko muy vision 2050 di référentiel bi nga xam ne daanaka sénégalais bëri ñu ngi ko doon xaar démb nag gis nañu ne gars yi jëmmal nañ ko démb ca Diamniadio ci teewaayu ay diplomate yu bare bare macha allah maanaam lépp daal loo xam daanaka sénégalais am nañ ko ci wàllu kilifa moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew ñu si bëri jox nañ leen invitation pour que vraiment ñu ñëw fekkee si lancement euh, référentiel bii la mu nekk nag ab référence boo xam ne ni daanaka dafay dem ba ci euh, deux mille cinquante maanaam fii léegi vingt cinq ci la ci ci la mbir yi dem euh, li nga xam ne ni moom lañ ko gis rek mooy que bépp président bu fi bu gis nañ ne Wade jaar na fi ñëw jaay ñu projet bii di NEPAD Macky Sall aussi bu mu ñëwee ñëw na jaay ñu li ñu naan yoonu yokkute bu mu demee ba ci biir doxul ci la ñu jaay li nga xam moo di plan Sénégal émergent mooy PSE waaye plan Sénégal émergent bi il faut ñu taxaw si parce que ñu bari dañu ne plan Sénégal la te man ma gëm na ne du plan Sénégal man loolu laa gëm dama gëm ne ne plan Sénégal émergent bi du plan Sénégal waaye sama du plan Sénégal boo gisee ma ne du plan Sénégal c'est parce que c'est un plan boo xam ne ni état bu Sénégal def nañ ci plus de six virgule cinq milliards de francs CFA pour uniquement ñu ma leen koy jëmmal mais boo xoolee man dama gëm ne ne six virgule xaw ma quelques milliards yooyu dañ ko jox rek pour neexal ko ay nit waaye plan boobule du ay tubaab ñooñu ko confectionné maanaam maanaam du ay du ay experts ñoo ko confectionné mais France moo ko confectionné jox ko ay Sénégal Sénégal pour que Sénégal mën koy jëfee ndaxte boo demee ca Gabon am na plan gabonais émergent maanaam mboolem réew yi nga xam ne nii daanaka France moom moo leen coloniser boo fa demee am na plan bu ni mel kon bu ñu bëggee gëm loo ne Séné Macky Sall taxawal na fi ab projet bu tuddee ko plan Sénégal émergent man mënuma ko gëm parce que man dama gëm ne loolu du suñu projet ñun du suñu plan mais plan ko confectionné jox ko sénégalais pour a lekk xaalis nag il faut que ñu jaaree ko ci ay tubaab gëm loolu nañu ko def suñu six virgule et ko ko defee ñu am am nañu ko jaaralee maam man li ma gëm mooy plan Sénégal émergence du suñu plan ñun mais français yi ñooñu ko imposé ndaxte ni mu amee Sénégal noonu la amee fële ci Gabon boo demee Gabon am na plan gabonais émergent boo demee Niger amoon na plan Niger émergent maanaam mbooleem réew yi nga xam ne fii ci Afrique la te français yi coloniser leen boo fa demee am na plan ndàngam émergent kon bu ñu loo ne plan bi plan Macky Sall la nañ wax ne kat projet la boo xam ne ni sukkandiku nañ ci pour enrichir ay nit wala peut être mën nañ wax ne kat profité nañ ci aussi vraiment pour dugal pour pour pour duufal seen i poste quoi. léegi nag maintenant euh, bu fekkente ne ñëw nañu ah ñu gis na ne président Bassirou Diomaye ñëw na lancé. projet bi ñu naan référentiel vision de mille cinquante. Mhm. kooku vraiment mën nañu koy rafetlu. te boo xoolee aussi ci projet bi bien que ñu bëri ñu ngi naan ne président Diakhou Mbaye Faye dafa plagier mais man. comme plagier. loolu la ñuy wax. Mhm. mais man gisuma lan fan la ñu plagier man gisuma ko plagiat fu fekkee am na dañ ma wax fan la plagiat am. Mhm. gis nga kër boo koy tabax. lu mu bon bon di nga jël maçon lu mu bon bon di nga jël ay ouvrier. li nga jël bon di nga di nga jënd ciment di nga jënd fer. est-ce que du maçon bi ñu jël. waaw c'est ça le problème léegi man imaginer pas l'affaire c'est ça imaginer tey jii man may tabax suma kër yow nga tabax sa kër. Uh-huh. ma jël si ma sama fa jël jël sama architecte jël sama plan jël sama kii ma koy jëmmal nga naan ma dama la plagier. <laughs> est-ce que yow yaa moom ciment bi yow yaa moom fer bi ba ma ko jënd yaa ma ko jëndaloo ba may jël maçon bi yaa ma ko jëndaloo mais il faut que les gens soient sérieux Sénégal benn Sénégal la kon bu fekkente nit ki am na gis-gis bu ko tuumal ne dafa plagié plagiat amu ci jël nañu ay nit ñoo xam ne c'est des Sénégalais ñoom ñoo tëgg projet bi daal di koy jëmmal te bañ ko fësalee démb Sénégal yi gis nañ seen bopp. occasion lay doon suñu ñu di delloo njukkal Victor Ndiaye. monsieur le maire ma la bëgg kii tuuti est-ce que le fait que ñuy muy am ñuy génn naan dañ dañ ko plagiat genre yoon est-ce que ça ne veut pas dire que projet bi dafa connaître. un succès un franc succès ba xam ku nekk bëgg naan ah, mais non xam nga aussi boo xoolee démb rek gars yi ni ñu ko présenté da ngay xam ne nii vraiment nice quoi. Mm-hmm, c'est te li ma ci gën a neex Moussa mooy ci par rapport ak projet bi par rapport ak référentiel bi ay sénégalais ñoom ñoo ko jëmmal. Mm-hmm. li dafay wane ne au moins Sénégal léegi complexe bi nga xam ne amoon na suñu léegi dañ na. léegi ñu ngi wane ne actuellement nii ñu lépp loo xam tubaab yi mënoon nañ ko ñun mën nañ ko ndax nga mën a comprendre yow nga ne da ngay taxawal ab planche. de surcroît plan Sénégal boo xam ne nii dañ ne si Sénégal lañ ko fas yéene jëfee nga dem seeta ji ay expert tubaab fay leen 6 virgule 5 milliards ci li nga wax pour que ñu defal Sénégal ab plan loolu xel mën na koy nangu pendant temps am na ay doomi réew mi yoo xam ne ñu ngi fi moo tax dañuy rafetlu effectivement taxawaay Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye le fait que vraiment ñoom ñu am confiance ci ay sénégalais jox leen pour que ñu jëmal projet bi tey gis nga projet bi li ma ci gën a neex mm-hmm. wala li ko différencier ak yeneen projet yi fi doon am mooy que financement bi yëpp maanaam dix huit mille milliards mille milliards yi nga xam ne nii moom la état bu Sénégal bëgg a sukkandiku ci diggante deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq jàpp deux mille vingt neuf lépp mu ngi ko fas yéene jëlee ci inter maanaam ci financement intérieur du pays maanaam financement bi li ci bëri mu ngi ci fas yéene sukkandiku ci ñun maanaam nekkatul ay xaalis yoo xam ne nii. dañuy dem sukkandiku ci waa banque mondiale. Mm-hmm. sukkandiku ci waa FMI. pour que vraiment ñun ñu mën a financer ñun suñu suñu programme parce que da lay wóor la. FMI Banque mondiale chaque jour bu ñu la financé rek am na fu ñu lay jaarale la preuve tey ji xool suñu module suñu module scolaire yi des fois des nga jékki-jékki gis ñu imposer la yenn programme yoo xam ne da lay wóor ne lii méngoowul ak dara ak sa ak sa culture. méngoowul ak dara ak sa sa yarinu doom. et pourtant ñoom ñoo lay koy imposer te par de facto da koy jëfee ndaxte daal ñoom ñoo lay financé. léegi nag bu fekkente ne yow euh, cordon euh, ombilical bu bëgg nga koo dagg il faut que nga nangoo finance sa bopp te financement boobule mu ngi commencé ci ñun ñun ñun sénégalais yi maanaam mooy impôt yu ñuy dagg yu ñuy dagg ñi nga xam ne dañ leen doon exonérer ay fisc ñu fexe ba récupérer xaalis boobule loolu yëpp tey ji bu ñu ko baale bu ñu ko boolee ak la nga xam ne moom la jëlee ci secteur privé bi mhm. je pense bien que mën nañu accéder ci foofule jon ñàkkul ne parce que boo xoolee li ci lu wax nee nañu financement bi nga xam mooy jëlee ci public bi ñu ngi ko fas yéene ñu ngi ko estimé ci 62 virgule euh, euh, maanaam bu dee téeméeri milliards yooyu jël juróom-benn fukk ñaar yëpp ñu ngi ko fas yéene ci bi maanaam mooy impôt yeeg pour cent par euh, pour le partenariat public privé ñu ngi ko toll ci 23 6 pour cent ñoom presque sax boo xoolee seen projet sax basé wu ñu sax. ci ci partenariat ci ay partenaires yi nekk à l' étranger. kon c'est-à-dire que lii dafay wane ne. ñii dañoo taxaw pour jéem a indi lu bees. wane ne tey jii ñun sénégalais war nañoo gëm suñu bopp war nañoo gëm ne ñun suñu plan wala suñu projet war nañ ko mën a financer suñu bopp liggéey ko suñu bopp kon je pense bien lii dafay am solo mais li ma ci gën a neex soxna mooy juróom benn défi yi nga xam dañ ko lancé duma mën a lim parce que temps bi duñ ko bay mais juróom benn défi yi dafa nekk loo xam ni kenn ku nañ ci waroon cee bàyyi xel te bi ci jiitu te mu ëpp solo mooy ressources humaines de qualité gis nga ab réew wala ab réew munoo koo développé te fekk ne nit ña fay yeewu amuñu benn taxawaay bi gis nga boo gisee Chine Corée Japon dem ba finalement fu mu toll ñu commencé dab réew tubaab yi c'est parce que tout simplement c'est des populations yoo xam ne ni dañu am formation dañ leen a yar ci fànn wu ne en même temps aussi ñu former leen est-ce que maanaam dañ leen a former en même temps aussi mu nekk population boo xam ne ni dañuy wér boole ko aussi di du du bu baax gis nga yii bu fekkente ne am na ci ab population yaakaar naa ne pour que nga mën a teg réew mu la ci ab développement dafay doon loo xam ne ni lu yomb la en même temps aussi fexe ba am benn développement endogène gis nga nañu waxante dëgg aussi gis nga ab réew bu fekkente ne bëgg nañ koy mu développer il faut que ñun suñu secteur privé bi wala suñ suñu privé national bi dugal seen loxo te ñoom ci lii la ñuy fas yéene basé wu pour mën a teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute mais bi ma hmm. ci gën a neex te mu amal ma solo hmm. mooy la bonne gouvernance hmm. gis nga lépp looy def te fekk ne yorin wu sellul amul sens mën nga jël plus de dix-huit milliards dugal ko ci ab plan mais bu fekkente ne yorin wi sellul du mën a sotti moo tax j'ai beaucoup aimé keroog ba Bassirou Diomaye Faye di def séminaire gouvernemental avec ses ministres la mu leen wax kenn ku nekk déggoo ko kon c'est-à-dire que lii waruñu see yox yox yi c'est que jékki-jékki jël plus de ay presque juróom benn weer taxawal ab préférentiel vision 2050 ba noppi fas yéene jël ci xaalis Sénégal plus de 18 milliards dugal ko ci projet yi ba noppi bàyyi ay nit ñoo xam ni amuñu maanaam ay ay truand ñu koy jël di ko détourner loolu war ñu koy nangu. kon c'est-à-dire problème corruption boobule dafa war a doon loo xam ni lu yitteel la président Bassirou Diomaye Faye mm. te corruption bi ñun sénégalais yi ñu ngi koy dund. six mois yi ñu fi toogee ba léegi yaakaaroon nañ tey ji président la preuve mu may ko jarul ngay sonn. génnal ci mbedd mi rek nga jëkk jékki gis ab takk der mu taxaw nga xool nu muy jëflanteeg takk eh, nu muy nu muy nu muy jëflanteeg. Eh, eh, chauffeur si. wala nu muy jëflanteeg borom moto jakarta yi. kon cest nekk loo xam ne ni ñoo ko wax sax ko génnee. ab moom moo génne tey jii bu fekkente ne yaa ngi jël Sénégal corps bi nga xam moo ëpp lu ñu corrompre mooy corps takk der yi kon bu fekkente ne jënd décision vraiment pour éradiquer la na ko tàmbalee foofu. maanaam fexe ba corruption bi nga xam moom moo am ci force de l'ordre bu bu te mm-hmm. a permettre à ce que vraiment Sénégalais yi a jaar jaar ci yoon bu ma dawalee moto bi amul papier ma jàkkaarloo policier mu wóor na policier bi ma may lu doy fatal ay nii may jël daf may te boo deful ndànk sax daf may dóor amende mm-hmm. say dërëm say dërëm ak say ñaar dërëm faalewu ko kon bu baax man dinaa fexe ba régulation bopp te loolu bu fekkente ne loolu président Bassirou Diomaye bëgg na ko il faut que mu tàmbale ko foofu tàmbale ko dugaloo aussi suñu justice bi. fonction publique bi comme ni mu ko waxee. administration bi ku jëm a xool naka la koy gën tëggaate ba sénégalais mën cee gis bopp te gis naa ko aussi si biir référence bi parce que nee nañu bëgg nañu ab justice boo xam ne ni. dafay jege population bi di jox yenn information population bi loolu aussi dafa doon loo xam ne wax dëgg yàlla am na solo quoi. protège aussi yenn yenn couches yi couches couches vulnérables jigéen ñeek xale yi mhm. yooyu yëpp lu am solo en même temps aussi jàppale jigéen ñi ay financement mhm. honnêtement man daal bon honnêtement gisuma ci gisuma ci gisuma ci gisuma ci gisuma ci démb moom lu ma ci lu ma ciy wax. c'est vrai vraiment ça fait presque l'unanimité hier ñi ko visionné yëpp ah. c'est ça da ngay junj rek. ils disent que le projet le est, est bon Moussa Sène et ça augure euh, monsieur le maire de l'espoir mhm. euh, ci euh, fi comme ni nga ko waxee d'ici à deux mille cinquante léegi li ci des rek mooy à chaque fois dañuy euh, tegal ci taable bi des projets et projets yooyu à chaque fois dañuy gis foras Ah, du ñu gis lenn loo xam ne da si da si tukkee soxlawuñu papier eh, boo xam ne dañ koy lii rek eh, yem si mais concrétisation bi la ñu la ñu soxla ñu ñu gëm ko mhm. eh, ku nekk soobu ci ci liggéey bi bu ko defee rek comme ni nga ko waxee lépp lu ñeel corruption soxna yi mën a demal seenu bopp am seenu financement mhm. li nga wax nii uh-huh. dafa am solo parce que c'est pas la première fois ñuy jaay ay projet mhm. c'est pas la première fois ñuy ñëw dañuy tegal ne fii la ñu bëgg a jëm Sénégal mais Sénégal moo nekk réew moo xam ne nii tey jii boo demee ci tiroir yi façon projet bu nekk ma nga fa façon plan bu nekk ma nga fa mais problème mooy exécution mooy poser problème ñaata yoon lañu mobiliser sénégalais yi ay projet mm-hmm. ñaata yoon la fa ab premier ministre taxaw assemblée nationale dafa ñu déclaration de politique générale mais après fourage daal di xëddéem c'est que nous avons des yoo xam ne nii bu dee wax ñoo ko fi dàq bu dee wax kese ñoo ko fi dàq waaye bu dee sur le terrain moom dafay poser problème

la nga xam ne ni kilifa diine bi war na koy wax ëllëg bul xool intervention kilifa diine bi bul xool intervention mbokk bul xeet intervention ma sàmb ak intervention ma demba parce que Sénégal loolu bokk na ci li nga xam moom moo ko gën a tardeel kon tey jii yow bu fekkee da nga indi référence bu bees bëgg gars yi di jub jubal ak jubanti il faut nga nekk nit ko xam nit ko courageux nga nga xam ne décision boo jël te mu wëlal ci yoon nga ko teg mettre ko en exécution mais bu fekkente ne da ngay jël benn décision man ñoxoon njaay génn fa lay yuuxu wane manifester wàcc ci mbedd mi nga delloo ginnaaw amul sens wala nga jékki-jékki jël benn décision ab kilifa diine woo la téléphone ne la bu doon sama soxla nga doxalee ni nga dellu ginnaaw amul sens li ñu war a xam mooy ñoom ce ne sont pas les religieux ñoom ñoo leen fal. la population du ay religieux ñoom ñoo leen fal. amul benn kilifa boo xam ne ni def def def déclaration nañuy fal Diomaye amul. pouvoir spirituel bi am na ci doole de amul benn kilifa diine boo xam ne ni yow yaa fal Diomaye yow yaa fay Sonko. Sonko ñi ko mooy la population. kon bu fekkente ne war nañu rendre compte population bi lañu war a rendre compte kon ñoom bu ñuy liggéey léegi nañu liggéeyal population bi kon bu fekkente ne ñu ngi jël jën décisions yi na nekk ay décisions yu courageuses sinon bu ñu ko deful bu yeboo seen référence bi njël ko daal ko dugal ci parce que mujj fenn pour mu leer. mais monsieur le maire est-ce que jàpp nga ni ñoom seen référentiel bii ñoom sañ nañ ci bañ a def dara parce que régime bu nekk buñ boo ñëwee il faut nga jéem a say empreinte gis nañ ni le chef de l'État bi fi nekkoon muy euh, Macky Sall moom au moins am na li ñu fi bàyyil il a travaillé sauf que euh, xëy na jikko yi ñoo xawoon yàqu ak valeurs yeeg yooyu noonu mais il a fait quelque chose ndax am na fi ay BRT am na fi ay terre am na voilà ay autopont tout ça construire na ko kon donc est-ce que nii avec le référentiel est-ce que ils n'ont pas du pain sur la planche est-ce que euh, maanaam temps état temps de grâce sax est-ce que dina amaat. c'est normal du pain sur la planche li ñu chanté yëpp. oui euh, ñu def ko. il faut aussi ñu. parce que yaakaar la. c'est que leen rek mooy son problème. Mm-hmm. mooy la vraiment ñu ne le fait que ñu ne dañu bëgg a sukkandiku sur le plan sur maanaam sur le financement intérieur. Mm. c'est que moo nekk koo xam ne nii moo mënta muñ. xaar bu yàgg. le problème des sénégalais c'est ça. après mooy que tey jii ñi bañ leen fare léegi ça ne fait pas 6 mois yaa ngi dégg Sénégalais yi commencé coow dëkk bi daa metti mais dëkk bu mu metti dafay tey. non du ba ñu Macky Sall jàpp dañuy rey ci kaso yi méttiwul woon. si ba ñu Macky Sall dañuy tere ñun ñu dox ci mbedd bi taxawaalu méttiwul woon. Mm, mais tey jii ñii si 6 mois au moins. Uh-huh. man maa ngi toog di wax sama soxla. Mm-hmm. mais 6 mois ci gannaaw am woon fit bi mais loolu dëkk loolu dëkk boobu neexul. neex na dëkk bu deexul maanaam tey jii bu fekkee ne bëgg ngaa manifester nga wàcc si mbedd bi di manifester population bi encadré la wala gendarme bi encadré la dëkk boobu neexul récemment lañu ñu wàññi njëgu dund bi wàññi ñu lépp mais am na loo xam ne wàññi nañ ko loolu nga ne neexul bu dee nag problème mu xaalis la ñoom def nañu benn genre programme am na lu ñu wax bërki démb ne président Macky Sall ak nguuram jël nañ 650 milliards yoo xam dafa réer te ko wa gis 2500 milliards yoo xam ne actuellement ni jëfandikoo ko te jaaru ci ci ci trésor mais xaalis bu mel noonu tey ji bu réeré ci ab état tey ji ab pouvoir bu bees ñëw daal di ko ciy wutu est-ce que war ngaa mën a xaar ci 6 mois nguur googu neex mais nañu wax dëgg il faut que les moo tax ma am problème boobu parce que tey ji gis nga seen finance bi yëpp dañ ko bëgg jëlee ci population bi mhm. te population bu Sénégal mooy nit ñoo xam dañu bëgg lu xam moo gën a bëgg lu yomb tey jii xoolal tey jii bu ñu daggee impôt nga dégg ñu coow barki de mondial lañu wax ne pré média bi nañu fay impôt gars yi génn ci mbedd bi takk ci rajo yi di wax nag mu mel ni presse bi moom moom moo fi ñun presse bi daal ñu ñoo fi gën ñu ñun dañu fay impôt patron presse kenn ku ne def say édito impôt te leen bi leen président Macky Sall doon exonérer ay fixe yëpp seen personnel mun ñu ko gis ñu ko <laughs> xanaa kay boo nekkee ci entreprise ñu exonérer fixe mu ne yow faytoo impôt au moins bu am répercussion ci personnel mais nañ dem ci média bi xool suñu patron de presse yi ñu si bëri si ñoom boobu nga xam ne tey ji président Macky Sall dafa jël décision delloo ko delloo siwaat ko mhm. di ñu takk si rajo yi di wax sénégalais moo bëgg lu yomb kon Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko bu fekkente ni bëgg doy réew mi il faut ñu am ni ay ay nit ñu courageux mooy fexe ba Sénégal gii képp ku fuy yeewoo nga fay impôt par force bu ñu ko defee rek si liggéey réew mi mais buñ fi nekkee bi yox yox yi buñ fi nekkee di yox yox yi lu doy ni tar fatal ay ni seen projet bi si exclu yow tànk yi ñu jël de bu fekkee moom la ñuy continuer non non vraiment li nga wax euh, lu am lu am solo la te ay dëgg dëgg moom neexut a dëgg waaye impôt moom forcé euh, dinañ ko dinañ ko fay muy ñi nekk ci média yi ñuy muy entreprise yu yu mag yi nagam jub jubal jubanti euh, Moussa Sène la ñu woote léppay jub rang bi day jub normal non jub jubal jubanti xëy na sax mën nañu wax ni rythme avancement pour euh, jéem a nit ñi am espoir que dëkk bi dina développé wu maanaam jub jubal jubanti bi moo tax euh, mënaguñoo gis loolu parce que bi bi bi euh, ñii Ousmane sonk ak bi ñu fi toogee ba léegi mais lan nga gis am na fi ay scandale <laughs> ay terrain ñi nga xam ne am nañ ay treize hectares littoral bi encore la même chose mais c'est normal encore ñu ne ay nga xam nga des milliards yoo xamante ni dañ dañ dañ leen sàcc des les gouvernants ñoo koy ñoo ko yoroon mais xamuñu fan la réer mais avec ça tamit monsieur le maire si dëkk am na situation bi ñu koy fekk mais mënoo xëy xëy rek nga naan da ngay avancer il faut aussi nga jukki li nga xamante ni moo fi nekkoon. tu creuses les dossiers le fond des dossiers pour savoir euh, nga def état des lieux mais avec ça tamit on ne peut pas affaire développement mën ko wax. kon donc il faut que les gens comprennent que d'abord jub jubal jubanti foog mu am mënul ñàkk te ci état boobu lañ toll en espace de six mois bon personne na peut faire rien bien vrai que aussi il y a la volonté am nañ yéene te li ma gën a neex mooy c'est-à-dire euh, autonomie bi ñuy woote man looloo ma neex si ces gouvernants autonomie maanaam gëmuñu c'est les gens qui sont à l'étranger mais c'est-à-dire il ne faut pas par exemple nit ki waroo xeeb sa bopp tey monsieur le maire par exemple boo ma joxoon un calcul tu mu dis que un plus un ma ne la égal trois mais waroo maa gëdd tu dois m'encourager pour à ce que ma jéem a rester zéro pour xam un plus un égal égal égal deux mais le trois tu aussi war nga am euh, courage nga ne ma trois boobu nga wax c'est pourquoi lan la parce que euh, soo ma laajee man am naa sama justification kon donc si ces gens la imposent la rupture et également euh, maanaam autonomie mais mën nañ war nañ war la mën a encourager ñu jéem leen jàppale. donc voilà au fait cest nit ki da ngay gëm sa bopp il faut aussi nga xam ni yaay kan ak sa njëg yow ce que tu vaux. boo xamul li ngay jar bu keneen xamul li ngay jar xamal li ngay jar et en temps précis yow nit ki dina xam tamit aussi man man sama volonté c'était ça. preuve à l'appui mu ngi lekk ay simili woon bi. waaw waaw mais quand même c'est intéressant wax. ah moom moo moo relancé non euh, li nga wax c'est vrai. c'est ça man c'est-à-dire ah, dama gëm nit ko xamante ni il est courageux. non li nga wax parce que tey jii nii ni ma sàmm def ba. nekk ci benn niveau bi mais tamit man xeeb ma sama bopp je peux aller plus loin que Massamba. Moussa ma jox la benn affaire nga xam. ay politique politique politique politicienne moo fi moo fi war a jeex. kër mhm. mën naa ko méngale ak réew te kër waxtu koo gis ko ko am rek yàppoon ab dof la. ab dof mooy am kër. ab dof dëgg mooy am kër parce que dof pour nga am kër il faut nga nekk nit ku am fit. am loo am mu mu <laughs> mu jaral nga bàyyi lu bari pour que nga mën a samp kër ab réew nag c'est comme ça. yaa ngi tudd sànq affaire reddition des comptes. Mm-hmm. am na seen soxna soo xam ni nii fan ay ay ci ginnaaw fi la tokk rajo yi di wax di mbel mbeli rek. fee neexul de. yaa ngi koy wax léegi léegi. <laughs> fële fële daal neexul nga. Ah, ah, takk rajo yi di wax rek. Ah, ñi fa jaar yëpp bu ñu génnee dañuy conscientiser ne. takk rajo ngeen fexe ba fee bu leen fa dugg. benn benn di wax rek. Hmm. boo ko gaa yi bëggee jëli mu nekk ci mbedd bi génn ab tiktok ab ab ab vidéo naan man daw ma maa ngi fii mais ba ñu koy yóbbee ca kaaf ba nangu naa génn 28 millions. kon donc. alors monsieur le fee neexul de.